asalaamaaleykum cheikh ami internet bu Dakar net dalati leen ak jàmm dige bor la ñoo leen ko digoon fu ñu jaar waxaat leen ko muy top actu di seen rubrique bi nga xamante ni lépp loo xamante ni mooy actualité lépp jàpp na waaye sa bu baax na de. waaw merci waaw ah, nuyoo. nga xamante ni mooy euh, suñuy xaritu internet ñi nga xamante ni miin nañu rendez-vous bi di ànd ak ñun tous les samedis ñu dégte leen xibaar yi nga xamante ni ñoo fi gënoon na fees ci ay bés yu ñu génn David. comme ni nga ko waxee loolu lay demee mooy lépp loo xamante ni moo soxal politique ak moo soxal économie ak lu mu doon ba ci sax santé lépp dañ ko ciy laal waaye tamit Dakar la lépp di netee moo tax ana la moo gën a fës a fës ni daal dinañuy wàcc ci bile semaine ñu dooree ko ak génn ak àddina ki nga xamante ni mooy Abdoul Aziz Mbaye Faye nekkoon fii jëwriñ jëm ci wàllu caada ak cosaan David. noonu la demee jëwriñ jooju nga xamante ni moo doon wuyoo ci turu Abdoul Aziz Mbaye nekkoon ci membre API waaye tamit ci fàttali rek nekkoon ni tamit jëwriñu eh, lii di soxal wàllum culture ci fàttali rek atam tolloon na ci 67 ans waaye tamit leneen li nga xamante ni mën nañ ko wax ba tey nekkoon na premier directeur cabinet kii di président Macky Sall fii rek nag boobu équipe Dakar Net yëpp ñu ngi Serigne Moustapha si nekkoon doom ci ki nga xamante ni mooy Serigne Mansour si ni nga ko waxee it noonu la mhm. turam di wuyoo ci suru Serigne Moustapha Sy Jamil ibn mhm. Serigne Mansour Sy borom daara yi mhm. moom it mu bàyyeekoo fi daal di dem ca Barzak ca këru dëgg yi ñuy ñaanal ko tamit fa nga xamante ni fa lay dem cet ba ñu ko faa jiitu waaye tamit ci fàttali rek moom Serigne Moustapha Sy Jamil daal doonoon doomu Serigne Mansour Sy borom daara yi fa mu nga xamante ni fa la faatoo bokk na ca foofu ca diwaanu Ndakaaru waaye tamit jaal ga ñu ngi koy nangoo ca Point E fii rek boobu nag ñuy fàttali ni mbokk yi jamono ji ñu ngi ko denc watu baayam di Serigne Mansour Sy borom daara yi. Mhm. foofee la ñu ko denc. ñu toftal ci leneen jëm ci wàllum politique nga xamante ñu ngi koy waxtaanee ni ki barki démb di mbiral Ousmane Sonko mi nga xamante ni dañu koy tuumaal viol toftal ci menace de mort David. ni nga ko waxee njiital Pastef bi di Ousmane Sonko mu nekkoon ancien inspecteur des impôts waaye tamit ci fàttali rek at ba nga xamante la tàbbee ci politique muy atum 2014 fàttaliwaat rek moom Ousmane Sonko élection présidentielle bu soxaloon ci deux mille dix neuf yi te mu jëloon si ñetteelu place moom mii da la ñu jël à plainte teg ko ci ndoddam waaye la mbir ma amee defe naa ni comme na ko nit ñëpp xamee bokk na ci ab salon de massage bi nga xamante ni ab soxna buy wuyoo ci turu aji atam tolloo ci ñaar fukki at moo daal di koy accusé ci plainte boo xamante ni sax daal dina ci wax wàllum viol ak lii di menace de mort ba jël ko yóbbu ko ca commanda ba nekk ci section bu recherche jamono ji ñuy wax ak yow nag lépp muy procédure bi mi ngi nekk ci loxol yoon Mhm. mu ngi ci loxol yoon waaye tam ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko daal di nay euh, génn wax ak ñi nga xamante ni ñoom la sekkal liggéey bi daal di leen euh, wax ni seen xel mën na dal ndax loolu ñu koy tuumaal amul benn yoon waaye lu ci mënti am rek yoon mu ngi def liggéeyam ñu tàbbi ci leneen euh, jëm ci wàllu wëy ki nga xamante ni moom la ñuy dàkkantale la voix d'or mi nga xamante ni mooy Kumba Gawlo Seck moom nag daal di nay def benn vidéo di wax ni wëy daal da koy tegandi ba ci kanam li ko waral du leen lu dul jagadi bu mu yëg ci yaramam ci loolu la demee ab vidéo bi nga xamante ni moom Kumba Gawla naan ko la diva daal dina koy yëkkati jëmale ko ci ñi nga xamante ni ñoo koy safoo ak di koy ndamoo xamal boo xamante ni jotoon na ko def ba ña koy saytu daal di ko ne lii di way na ko tegandigum ngir kan mu daal di maintenir li nga xamante ni mooy état de santé am fii leen ak boobu ba tey ñun ñëpp ñu ngi maase di koy ñaanal yàlla may ko wér ak tan bu baax a baax. Mm-hmm, yàlla may ko wér ak tan ba mu mën a dellu ñu bégal ndax kat bu ñu euh, juumulee euh, daal dina fi def ay duo yu bëree bëri bëri ak ay artistes national comme international def na ay jéego yu bëri ci euh, wàllu musique ci wàllu musique dañuy bàyyi wax ca la nga xamante ni moo xew foofu ca fan okka mm. mm. suuf la wàllum xëccoo kër fële ca fan benn famille bu ñuy wax fami ñing ñoom nag daal ñuy jote seen biir ba nga xamante ni kër gi dañu ko jaay ñenn ñi dëkk ci ñeneen ñi génn waaye jamono ji nag police moo fa wàcc ngir ñi nga xamante ni ñam ña fa nekkoon daal di génn bile kër ndax ñenn ñi dañu ko jaayoon loolee nag daal di jur coow ba ñu nekk di xeexoo seen biir police daal di fay ñëw ngir àtte leen loolee nag daal di jur euh, ñu daal di teg loxo ñett ci ñoom ba jamono ji ñuy àddoo kër ga dañ leen a génnee ba kër ga dañu ko mujjee daaneel jamono ji dara desatu fa te ñoom ñëpp génne nañu leneen li nga xamante ni moo gën a fës ci wàllu Mhm. ci wàllum euh, fait divers euh, ñu jëm fële ca yow Tóngoor la fa xew daal di doy waar lool nekk euh, benn njaboot nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo génn àddina ginnaaw ba ñu doon cuuraay seen ab néeg cuuraay googu ci la ñuy des ku xam période bi période sedd bi nga xamante ni ku ci nekk dina fexe ba xool ana na lay def ba néegam daal di tàng moom soxna si wuyoo ci turu Adama Bari ak ñaari doomam ñu daal di fay jaar ñàkk seen bakkan ci ginnaaw fenêtre yi nga xamante ni tëj nañ ko rawatina néeg daal di taal ànd cuuraay booyal ko ba néeg ba loolu moo leen jël yóbbee ñu mm. daal di xam ba moo leen yóbbu ca barzak boobu nag la ñu def ab alerte ñii di sapeur pompier ñu leen di ñaanal nag jamono ji suñu borom mu at leen ci yërmandeem. Mhm. suñu borom àtte leen ci yërmandeem waaye tamit ñu jàngat ci leen rek jamonoy seddaay bi nit ñi dañuy utiliser cuuraay lu baree bari. Mhm. xanaa ñu ci euh, def ndànk-ndànk rek lu mu sedd sedd ñuy def ndànk xam naa sama mbokk séeréer yi la rek. waaw surtout nag euh, ñi mhm. ñoo nekk ci ko ci mel ne Vito. xam nga temps yi moom na ko daal pour mu bëgg na ko lool waaye na ciy dem ndànk rek lu ci mënti am rek euh, danger am na ci surtout ñi nga xamante ni dañuy am ay maladie pulmonaire ana lan li may tàggoo mooy rek di remercier ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ak ñun depuis boobu ak léegi ñoom mi nañu rendez-vous bi tous les samedi ñuy ànd ak ñun ngir ñu dégtal leen li nga xamante ni mooy xibaar yi gënoon a fës ci ay bés yu ñu génnoon xanaa di leen jox dig daje euh, samedi bi yi ñëw incha allah. dig daje la leen di jox man ma sant yàlla julli ci yonent bi sangu-sang yi di gërëm waajur yi waaye tamit di gërëm ñi nga xamante ni ñoo tax ñu fës ñoo tax ñu feeñ équipe bi nga xamante ni ñoo nekk suñu ginnaaw ki nga xamante ni moo ko jiite di Abdou rawatina nag l'intouchable nee naa mooy sama princesse sans cesse avec justesse ak politesse. Mm-hmm. muy di bisou. Mm-hmm. kon noonu laay def à maa ngi leen di béggee ba beneen.